ragal ragal yow Sénégal daal seen kaw naan xoolal naan Sénégal kuy nelaw da nga yeewu gars yi bi li mu wëtte jot naa bàyyi xel dëggal sa xol wax leen dëggal sa xol eh dëggal sa xol yal ci jàmm buñ ko amee nag nañ ko ci jàmm te tooñ te xeex te bañ a xuloo yal na leen yàlla may ndam yal na leen yàlla may ndam naan Sénégal ku nelaw na nga yeewu jaay yeewu leen Baye Jalas li mu woote jar naa bàyyi xel kolobolo waxal kolobolo ana joor yi kolobolo ana joor yi Jalas dafa génne fecc mu bees loolu équipe nationale xoolal na na nga taxaw mi ngi ñëw dal seen kaw sama gaay yi li wax ci jour yi naan Sénégal xalam demoon na bay neex équipe nationale yow yëpp a wax Sénégal day gagné Sénégal gagné leen mu neex a